mbokk yi comme liñ leen daan wax rek euh, moom lañ del siyaat ci ndimbalal suñu borom tabaraka wa taala ci mbirum Sëriñ Tuubaa Seex Ahmadu Bamba Xaadimu ne am na ko ak martaba bi nga xam ne mi nga xamee mi ne demee na ko ci yàlla ba jeexal ci boppam tàkk dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jeexal ci boppam ci mbirum Tuubaa la ñëw euh, ci warma ji nga xam ne am na ko ak fonk ki ko Sëriñ Tuubaa fonk ndax wax nañ ne ci Daaru dañu mos a tabaski genn ba noppi ba tabaski gi amee ñaar fukki fan Serigne Touba dafa jékki-jékki réer mbooloo mi bi mu réeree mbooloo mi lu toll ci ñaar fukki fan mbooloo mi toog jaaxle lool xamuñu fu ñuy teg seen tànk ndax tiit wax dëgg yàlla te mënuñoo toog te gisuñu Serigne Touba ñu toog bu mu jàgg ñu ne daal lii daal dëlatul am xel nañ jéem a fas yéenee génn jéem a xool fu ñuy mën a jaayi suñu bakkan ba ba ñuy tegaat Serigne Touba bët euh, loolu bañ ko defee fukki nit lañ ak juróom te booba àllub Touba ak diggante ak Mbàkke mel na melakaan boo xam ne kenn mënta am dayoo wala fit wala karaama wala lenn ba mën a ñëm a génn yow kese dem ci àll bu bañ ko defee ñu yor seeni fetal yor seeni fet génn di wër di wër ci naaj wu tàng jëpp ba dajeeg benn tukkulóor boo xam ne boobu jëla tudd booba ab sàmm la woon biñ dajeeg moom mu laaj leen yéen lan mooy seen tànk ndax naaj wu tàng wii ngeen di dox di xam naa ne doxu leen jàmm ñu nettali ko li nga xam ne moo leen tax di dox ne leen sëñ bi def noonu réer ci Daaru Salaam ñaar fukki fan ak eh, lu topp gannaaw ba nu tabaskee ba noppi mun na leen dey am na lu may gis lu nekk ci taatu garab di fa lu nuroog nit waaye nag xawma lu mu doon eh, ñu ne ko nan dem nga na ko ñu daal di ànd ak buuba ja di dox di dox di def ak fukki ak ba àgg ba séen ku mu toog ci taatu garab mun na leen ma nga nee toog ba leen ne ma nga nee toog buuba ja dafa daal di wàññeeku ñoom ñu daal di waaxu ba ca sëñ ba ñu daal di àgg ñoom ñëpp toog nuyoog sëñ bi sëñ bi toog ab diir door leen a fay toog bu mu mu daal leen di xool daal di muuñ daal ne ah xam naa ne jaaxle ngeen de ñu ne ko jaaxle nañu lool mu ne ko mu leen barab bii laa doon wër mu ne Touba te barab boobu laata mu koy wër euh, sëñ Touba joxe na ci ay tegtal ci Matlabul Fawzayni ci euh, comme fi mu jëlee Touba euh, allasiina aamanu wa amilu saalihaati Touba lahum wa husnul ma'aab moom la Alxuraan wax sëriñ Touba ñëw bi muy ñaan ci Touba ne wa maskani làkka euh, wajxal ilahi maskani Touba abad misla ismiha bi jaahi xayri man abad yàlla nanga def sama dëkk bii muy dëkk bu sax tàkk maanaam mu am taar bopp da koy jële ci turandoom ba nga xamante ne si ci laa ko dëppee muy allasiina amanu wa amilu saalihaati Touba lahum wa husnul ma'ab kon sëriñ Touba bu nekkee ci loolu wan dëkk ba gannaaw génn signé ak yàlla contrat dem Mbàkke Bari commencé fa contrat bi di dem ba àgg Ndar jóge Ndar ñu yóbbu ko Gabon transféré ko ay at sëñ bi di tumuraake kenn mës a gis lu mu lekk wala lu mu naan booba xam na ne Tuubaa gii muy sonn ak taalibe yi muy sonn ak sallallahu alayhi wa sallam mi muy mu ne danaa la liggéeyal lu la kenn mës a liggéeyal ñor na ko xom kon loolu du ay caaxaan du ay fo nañ fas yéene delloo si sunu bopp delloo si sunu xel xam ne mënoo dem àjjana mukk te jëmuwa yàlla mënoo am teraangay àddina mukk te liggéeyoo ndax li la bàyyi ci bitim réew wala mu bàyyi la ci biir Sénégal ngay testé si loo yóbbu sa kër pour bëgg koo jariñoo yàgg sa njaboot dong moo tax kon nag ku bëgg mbirum alaxira it da nangoo sonn te sëñ yu Mbacke yàgg na ko fee wax yoon wi jëm alaxira ay euh, jafe-jafe jafe-jafe rek moo fa nekk wi jëm àjjana ay jafe-jafe moo ci nekk ba tax na boo dul jullit dëgg wala nga gëm sëñ Tuubaa wala nga gëm sallallahu xëy na doo ci mën a génn yoon wi jëm ci sabara it nee na bànneexu bakkan rek moo ci nekk bànneexu bakkan lu la neex lu la neex lu la neex ba mu gunge la bëgg dem wala yesu yasu billaahi waaye képp koo xam ne si sa xel yaa ngi koy delloo ci aaya bi yàlla naan wa kulluhum aati yawmal xiyaamati fardan yéen ñëpp dana ngeen naa leen masa dajale fii benn par kenn ba kenn ku nekk defe na moom dong la sàkk sëñ Tuubaa yi daal di ñëw feelu ko ci masaalikul jinaan ne war xabal asiyaa li am am amwaati raddu ila dunya mahal xayaati walaw suwayxatan faqat li yaxmalu saalihatan tan faxu in xafaloo càkkutee fa ka nga xam ne ma nga àllaaxira tey de lu lenn lu dul rek nu mu see àddina ba jëf fi lu toll ne bën bënu pusa ngir mu mën koo jariñ ci tartar yi nga xam ne mu ngi koy foofu kon Touba bu sëñ Touba waxee loolu euh, xalifaam bu fi mas toog jàmm nga njëkk a woote ci mission bi la yàlla jox di la sëñ Touba jox jàmm nga njëkk a woote ak kilifa yi diine yi nga fi bokk nekkal dale ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mi fi wuute woon Serigne Touba ci 1908 ba ba 45 Serigne Fallou noonu ba doom yi dem ba jeex takk ci 2007 muy di Serigne Saliou Mbacke mi fi mujjoon ñëpp xam nañ ak rafetalam ak jomam ak jàmbaaram ci l'islam nga xam ne daral dul l'islam ñuru ko mbirum lii neex addina nit ñi ci àddina sax dawu ko dawu ko intéressé muy mbubb mu set kër yu rafet te ñëpp xam nañ ne mën na ko am na ko waaye xam na ne fii maanaam dadul ab dëkkuwaay kon nag képp kuy roy ci kooku di tudd ci kooku wala ngay wax ci kooku war ngay dox doxeenu kooka ndax sëñ Tuubaa lu ko may tey ci yónnante bi mooy dafa fekk fi yónnante bi daan teg tànkam mu teg ci tànkam waaye fentu fi yëfi boppam yu bees defu fi lennam loolee tey moo ko may kon nag ñun ñii nga xam ne ñun tey ñun la yàlla bàyyi ci àddina ñu net ñu ñuy nettali histoire sëñ Tuubaa ak i jaar jaar ak fekk ni Tuubaa mel nii te amagul daanaka téeméeri at ak fukk wala téeméeri at ak ñaar fukk bu Tuubaa ak seefee tey xam nañ ne jom ak Pastef moo ko fa yóbbu te bis bu la xasaraw ci àddina te defoo ci lu baax boobu dem na te bu boobaa da ngay pet kon bis bu ne na ngay xar ci sa tànk tubéy ba bis bi buy jeex mën na jeex mën laa jeexaaleel ci ndigali suñu borom ak ndigali Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul boole ko ay war ma yu mat sëkk nag ci dëkk bee nga xam ne mooy Touba Touba ba ko sëñ bi di sanc fa fi fi mu placé ci Sénégal boo ko xoolee xam ne fii lenn luy nuroog bànneexu bakkan waru fee mën a am ci àll bu mu sori lenn loo xam ne si luy lu ñuy mën a féexale xol ci wàllu saytaane amu fa waaye nag lenn lu nekk am na lu ko remplacé ndax bind na ay xasaayit bàyyi fi ne dee leen ko jàng andil nu màggal gi nga xam ne nee na waxuma la dara waaye mbégte mi mu àndal rek dimbali gin ciy dimbali jaam yi ña nekk yow mal xiyaam sax bu bis bi jotee dana bis bi dana dana ñëw ci ñoom bañ bañ xam ne bisu màggalu Tuubaa jot na te loolu moo ko ñaan suñu borom kon bis boobu bu jotee lañ ca war a def mooy position boo xam ne si dañ koy taxawee ci sant Sëñ Tuubaa te sant sëñ tubaa mooy sant yàlla rek ndax sëñ tubaa mosul teggi tànkam ci lu yàlla euh, euh, di digle léegi nag bis boobu bu jotee la ñëpp gën a xam mooy jàng alxuraan ñaan berde loolu la ñëpp xam te ku fi mas a toog def nga ci lu kawe njortul ka nga xamante ne sii moo la jiitu woon ba fi mu toll nii noonu lay demee màggal bu ñëw mooy dàq ko kon nag bu nu gisee lu ci rax loo xamante ne si bokku ci ñun comme taalibe bi sëñ Tuubaa lañ soldat sëñ Tuubaa lañ dañoo am droit taxaw wax am droit taxaw wax ci nag mooy lu neexul yàlla neexul yoon te neexul sëñ Tuubaa kon nun dañ koo war a mën a faj ci suñ doole suñ ko mënta faj ci suñ doole li alxuraan wax rek ñu mën koo faj li yonent bi wax rek ñu faj ko ci sunu làmmiñ buñ ko mënta faj ci sunu làmmiñ nag ñu toog muñ comme que nag yàlla may nañu làmmiñ may nu lu mel ne lii nga xam ne ci la ñuy defee lii ñuy def nii mu di serveur YouTube boo xam ne danañu permettre ci 15 minutes yoo ne danañ a développer message boo xam ne si dana jàll ci àddina bi ñu bari di ko déglu ñun kon ne góor ak jigéen dañ leen di dajale fi barab ñu ci jaxasoo dégg nga duñu fa tudd yàlla duñu fa tudd dara dégg nga boole ko ñuy jaxasoo non seulement ñuy ñuy jaxasoo mais dañ cay boole ay am pecc dajale ci ay waykat dajale ci loo xamante ne si tey ña ngi leen xamee woon ca soraano wala ñu xamee leen tey ji ca cosaan ci boîte yoo xamante si boîte seytaane la tey kon nun duñ mën a def rek lu dul liñ fiñ ci toll ci war cee mën a wax dañ ciy wax ba lu ñu ci lu ñu ci dikkalit nu xam ne nun euh, làmmiñ wi liñ ci war a wax mooy dañ ko boole ci jaamu yàlla yi cër yi nga xam ne dañuy jaamu yàlla lum lu ñu ci jaral rek jaral kon nun foofu lañ ciy waxee kon su loolu jàllee li ci des mooy comme ni ma ko daan waxee rek ndigal ndigal nit ku koo war di jëfi ci saa su ndigal ndax bu yàlla ne yaa ayyuhal lasiina aamanoo rek lam ca teg rek maanaam njariñal nit lay doon ab digle lay doon kon su fekkente ne yoonu murid dañ ko xam ci diggal kenn di tere ñuy bàyyi kenn di digle nuy def bu ko ñëpp joxee sa bopp dafa gën a noppale sax ci aw yaram ndax doo occupé dara ci ay problème ku daan la yaa fi waxoon yaa ndax ko am kilifa maanaam euh, dafa mel ne li wolof naan ko yor ku du doo lakk da noppal sa bopp surtout mbooloo moo xam ne dañ ko jël nag toftal la ko te mbooloo mi bu ko yàlla di toftal dafa bàyyi ay nit jox la ko ngir terale la ko kon lay lay lay ngor ga lay teraanga ja mooy ngeen ku ne nga orienté ko fexe ko euh, xamal lislaamam wala su fekkante ne yow mi nga xam ne yow lañ ko toftal sa lislaam sax am na loo xam ne si manqué na ci man nga former koo xamee ne ni ci loolu lay xëy di yëngu suba ngoon mu occupé la su ko defee bu boobaa da ngay am jàmmi addina ak alaxira waaye nag li sëñ Tuubaa daj ci Tuubaa lim daj ci tukki bi lim daj ci coono yi ngir jëmmi suñ borom te mësta nangu fenn foo xamee sii dañ fay wax loo xam ne si neexul suñ borom ndax liggéey sax da ko daan def lu nit ba waxtu julli jot ñëw du ñooñu duñ nangoo julli mu ñu ne leen fii mu ne dindi leen ndax ndigale suñu borom moo gën a mën a euh, dugg ci nit ki sama ndigal bañ ko dugalee ca pax ma ca gabon loolu la wax nee na wali topp fa suñu borom fekk nga fa ne ma ma dimbali la waaye ku ñëw dama lay wax ndax ndigal suñu borom nga ci am nga ne ma ah, ko ci dama laa jël mun la demal yàlla mi ma ko teg moo ko gën a mën a tegg ci yéen baax di roy ci doomam wala ngay roy ci setam war ngaa mën a am pas-pas ak ngor ak dignité ba ñi la yàlla booleel nga xam ñooy ñan ndax ab sëriñ moom yombul du question que ne da ngay toog rek sol sa garaam boobu ñuy génne xaalis di la jox wala ñuy tabaxi kër di la jox wala ngay voyagé lépp loo ci mën di def it yàgg-yàgg da nga ko fi bàyyi jëm ci àddina te li gën a garaaw mooy bu fekkee sëñ tubaa ngay bubboo te yàlla dem na ba jëmi jamono sëñ tubaa làqu ci suñu bët doomam yi ñoom ñëpp ku ci ñëw def lu raw la sa morom defoon ci lu baax dem ba làqu suñu bët kon war ngaa waajal sa bopp xam ne la fa jëli ñooñu du la fi te bis ku dem ba teew ca kanamu suñ borom ci bàmmeel ne mooy kër gi mujj ci doomu aadama ay tartaran dafa yoo xam ne ci am na ci ñun dañ koy nañ ko fay nekkaale ba ba ñu dugg ci ba ba yàlla di taxawal saa te tartar bu ci nekk wax nañ ne kuñ ko teg sa càkkuteef du lenn lu dul bëgg a dellu ci àddina kon nit ñi nañ ànd akom xel bàyyi politique bi teg ko fële ñi ko moomee ñu nekk ndax li nga xam ne si maanaam pouvoir bii la yàlla jox teg la ca kaw jël ay say moroomi bàyyi say moroomi euh, maam say moroomi doom say moroomi sët ñoom ñëpp ñu ñëw di toog ci sa ci ci suuf ngay toog ci kaw kooku war maju la yàlla jox waaye boo dee fay naar ba xorom sa nag wor maju ji da nga koy delloo suñu borom ci fi comme cër yi nga xam ne yàlla daf la ko jox mun taq ci yow du jóg ci yow cër bu ci nekk ne yàlla daf la wax ne la na koy sàmm muy dugg fu mu war a dugg muy tànk beeg nopp yi du ma ci cité noonu ndax mënta mënta doo ko mën a complété waaye cër bu ci ne yàlla dafa am lu mu la ci sant loo xam si moom nga def asamaan mbooloo mi nga xam dañ ko toftal ci sa gannaaw te loolu bu ëllëgee yàlla bu la tegee dana la laaj kenn ku la ma la doon sàmmloo nan nga ko doon sàmmee kulluhum raahin wa kulluhum mas'uulun an ra'iyyati kooku bu ko yàlla waxee du ca deltu gannaaw te àllaaxira moom la fa nekk bu ko kenn jënd mbirum àddina ndax àddina dafay dafay jeex ñi dundoon téeméeri at jóge nañ fi ñi dundoon ñaar téeméeri at jóge nañ fi am na ñu dundoon sax junni at jóge nañu fi te man fi jóge léegi rek lañ jotoon a dund la mu doon bari bari àddina dundaat fi lu ëpp ñu dem ba fàtte leen te ba fi mu toll nii am na ñoo xam yàlla ngay def compte seen digganteeg jom ci jafe-jafe yu ñu fi daan def kon nag bu la yàlla baaxee borom xam-xam nekk bi yàlla indi fi sëñ Tuubaa teg ko fi mu di la jàngal mu di sa wasiila na ngay fas yéene di jëfe ndigal tey bàyyi tere waaye tey képp ku xotti ndigal la sëñ Moustapha Sall wax waxoon rek bukki bëtt bunt bant bëtt bëtam loolu moo ci am surtout nag koo xam ne si moom dafa dafa liggéey ba yàlla gërëm ko yàlla teg ko ci sa ne ko na yàlla day farak moom lépp lu mu la wax ne la def ko soo xëttee ndigal la conséquence baa ngi nii te li ngay gis ci àddina bu àllaaxiraa lu ko raw da ko fa fekk te sëñ Sidi Muxtaar bi muy door a toog c'est très clair mu wax leer na diggante tijaan ak murit bëggatuma dégg rawatina ñun ñi nga xam biir la ñuy mbubboo daraja di mbubboo barke te même boo ko amee sax jurul wax ndax suñu Cheikh Mbacke yàlla na ko yàlla doole leer daana wax lu mel noonu li nga def jërul wax li nga defagul jërul wax ndax li nga def ngir yàllaa taxoon def nga ko ba pare li nga li nga defagulit xamu ko da nga da nga ko defam déet kon ñoo ñaar yëpp jër ta wax te lu fi waay am rek yàlla bu kenn bàkku ndax ku mën a garanti nit ci pouvoir mën ngaa garanti sa bopp encore une fois bul fi jóge àddina te yàgg yàgg da nga dee nit wuute la ñu wuutu la ci sa lépp ci sa kër ak sa lépp ñu wuute la kon nag kay def loole bu nee diglee nan ko def su teree nan ko bàyyi te yàlla far naa naag xalifab sëñ Tuubaa noo xamee ne nii far naag sëñ Touba sax laay wax ndax sëñ Touba moom ku fi toog rek moom ngay doon ndax mooy tànn nit ki di ko teg jéegi ne ku fi jóg rek mu teg la fi far naag moom ba lépp luñ ko ñaan ci war may Touba wala war may murit fu man di nekk ci àddina yàlla dana ko def kon nag nañuy ànd di liggéey di déglu ndigalam di bàyyi ay tereem te kenn ku ne la nga occupé ci ab politique mën nga ko occupé ci liggéeyu Touba ba nga xam ne ña nga ko fay taxawal lu mel ne maa u raxmatee nga fa mel ne que ñi nga fay def ay jàkka jàkka yi ñuy def yi nga xam ne sëñ sëñ doomu fi taxawal ña ko fay def te leen lu ne li nga dàqe kéwal mu jëm àll soo ko dàqee mu dugg ci biir kër gi da ci am dimbalal àddina ak te ci lañ lay gën a feeñe ndax yàlla ci bopp moo lay wane te moo nekk comme demee na noonu nag xam naa li nga xam ne moom la ñu cërale liñ ci desee ci ay ay ay ay seconde la rek wala ay cerse euh, xam naa ne noonu lañ koy noonu lañ koy defee ndax noonu chaque année rek euh, chaque mois rek dañ koy dañuy def seet fin de mois bi ñu seet actualité bu serveur bi après publier ko ñëpp jot ci ñuy ñaan képp koo xam ne yaa ngi dégg lépp loo xam si rëkk-rëkk la ci na nga xam ne maanaam euh, sunu manqué la manqué manqué la waaye nag comme fàttalee noonu moom moo war wa ko waaye nag comme matadik doomu aadama moo tax nu wàccee a aleykum wa rahmatullahi taala wa